أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم ومن سوء نفسي ومن إدلال الهوى ومن سوء إخواء الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا laqin lisaani waxlulan minhu luqad wajcalhu shaakiran wa zaakiran abad wajcal kalaami raashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa xalbi arsida mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare bëgg a ñëw ak yéen ci bindu bu yees ci téereb sëriñ bi mu tudde nahju xadaa il xaaj ñu tàmbali woon ko ak yéen di ko jàngatandoo ak yéen ba wéyaloon ci lu tolloog ñetti bind tey nag ñu bëgg a wéyal suñ bindug ñeenteel waaye continuer rek ci fi nga taxawoo fi nga xam ne foofu la ñu taxawoon keroog ci suñu bind bu mujj ñu taxawoon fi nga xam ne fa la sëriñ bi doon waxe radiallahu anhu na wa kullu ma xalla bil iktifaa'i xayrun min al kasiri zil anaa'i na li nga xam ne moo tuut te bari ay njariñ tuut te bari njariñ fees dell ak njariñ tuut te fees dell ak aw yiw moo gën loo xam ne dafa bari te bariwut njariñ sëriñ bi di continuer ba tey di wax ne nazamtuhu mu ne way naa téere bi wala yaxal naa téere bi nazman mu di yax boo xam ne wala way woo xam ne xawaa làq na almanafia ay njariñ bi fadli man ci ngëneelul ka nga xam ne waada digge ne an yu daafia mu fekk jullit ñi sëriñ bi radiallahu anhu mi ngi wax ne way naa téere bi mu doon way woo xam ne ay njariñ kese kese kese la làq lépp lu nekk ci biiram ay njariñ la waaye maa ngi ko way nag lépp làq ay njariñ ci ngëneelul ka nga xam ne moom moo diggée ne dina fekk jullit ñi te kooko mooy sunu borom bi subhanahu wa taala ndax suñu borom moo wax ne inna allaha yudafiu an allazina amanu suñu borom dina fekk dina défendre ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy way gëm mu ne laalla ni amaana man ahwi ma làq bihi ci téere bi arridwaana ngërëm loo xam ne dina tukkee ca suñu borom wal am na ak kóolute waaye ak kaaraange yowmal xawfi bisub ragal ba wal gufraani ak bis ba nga xam ne ku ne soxla na fa njéggal nee na sëriñ bi nee na maa ngi yaakaar ne téere bi nga xam ne moom laay way dinaa ci làq ay ngërëm yoo xam ne dina ma mën a couvrir dina ma mën a fegal maanaam tiitaange waaye dana ma mën a may yërmande suñu borom dana ma mën a may njëggalal suñu borom ëllëg yowmal xiyaam mooy bis ba nga xam ne jëf ju baax doyu fa te it mooy bis ba nga xam ne ku ci nekk la nga jëf lu mu bari bari ci lu baax di nga ko xeeb waaye lu mu niiw niiw ci lu ab safaan da nga ko naw bu baax a baax mu ne aleykum maa ngi leen di dénk yaa machara tullaabi yéen mboolem càkkuteef yi yéen ñi nga xam ne yéen ay sàkku xam-xam summa aleykum topp maa ngi leen di dénk bisal jawaabi ci biir a tontu maa ngi leen di dénk yéen ñi nga xam ne yéen ay sàkku xam-xam waaye maa ngi leen di dénk tontu bi nga xam ne moom laa leen di tontu ndax li tax mu wax ne maa ngi leen di dénk tontu bi ma leen di tontu mooy ne mag ñi ñoo sàkku woon ci moom mu wayal leen téere bi yaxalal leen ko kon bi mu leen ko yaxalalee ba defal leen ci li mu ci war a def yaakaar naa loolu mooy wax ji muy wax ne maa ngi leen di dénk ci tontu bi nga xam ne moom laa leen di tontu mu ne fii nekk na ci téere bi minal axlaaq ci ay teg ci ay jikko wal aadaa bi ak ay teggin maa la nga xam ne sa yaquudukum dana leen wommat wala xal set na leen a wommat ila sawaabi jëma leen ci ak njub sëriñ bi radiyallahu anhu wax na ne téere bi nekk li ci nekk ci ay jikko waaye li ci nekk ci ay teggin doon na loo xam ne mën na leen a wommat jëmaleen ci ak njub maanaam li fi nekk ci ay jikko yu rafet ci biir téere bi li fi sëriñ bi wax ci ay jikko yu rafet wax ko fi ci ay teggin yoo xam ne moom lañ war a jëflantee ci suñu biir ci sa digganteeg ku la mag sa digganteeg koo mag sa digganteeg koo maaseel yooyu yëpp yaakaar naa suñu ko jëfandikoo sëriñ bi nee naa la mu ñuy jubal rek mooy ak njub la ñuy yóbbe waaye ak texe la ñuy yóbbe waaye njariñ rek la ñuy jural nee na fiihi ba tey nekk na ci téere minal irshaadi ci ak gindee waaye ci ak jubal wal ifaada akuk jariñu maa la nga xam ne laaya mallu du yokkat minhu ci moom zawu iraada boroomu namm suñu boroom nee na képp koo xam ne day namm nga suñu boroom képp koo xam ne namm nga aw yiw képp koo xam ne namm nga aw yub ak njub li nga xam ne moo nekk ci téere bi ci ak njub ci aw yiw ak ci lu mën a jëriñ doomu aadama bi képp koo xam ne xam nga ko doo mas a yokkat ci téere bi waaye doo ci mas a tayyeel doo ci mas a deltu ginnaaw ngir njariñ loo xam ne téere bi làq na ko te muy njariñ lu fees dell daj kàpp bari lool nena nag wa yastawi dana yemoo mubtadi'un aji tàmbali wa muntahin ak aji yegg fii nafahi ci jariñu ci téere bi wa xayruhu aw yiwam laa yantahi du jeex sëriñ bi nee na ki nga xam ne moom mooy doog a tàmbali téere bi ak ki nga xam ne moom moo ko eggale ba jeexal ko jariñu gi nga xam ne moom lañ ciy jariñu ñoom ñaar maanaam amut ab daytal waaye yiw wi nga xam ne moom lañ ci mën a amee ñoom ñaar yi woowu amut ab daytal kon ki nga xam ne mooy doog a tàmbali téere bi njariñ lu rëy rëy mën na ko cee amee ki nga xam ne moo demit ba jeexal téere bi njariñ lu rëy rëy rëy rëy mën na ko cee amee kon ñoom ñaar mën nañoo jàpp ne ñoom ñaar ñoo yemu ci njariñu gi ñu mën a jariñoo ci téere bi suñu xamee li téere bi di jàngale waaye ñu koy jëfee comme ni nga xam ne noonu la ko téere bi noonu la ko sëriñ bi diglee ci téere bi nee na is ngir xadd xawaa làq na kayfiyatul wusuli naka la ñuy eggee ci suñu boroom li axsanil axlaaqi ci gën gaa rafeti jikko wal mamuuli ak la ñuy yaakaar ëllëg nee na téere bi mooy téere boo xam ne làq na naka la ñuy eggee ci suñu boroom naka la ñuy fan yoon wan yoon la ñuy jaar ba egg ci suñu boroom wan yoon la ñuy nan lañ war a jëflante ak suñu boroom nan lañ war a jëflante ak ñi nga xam ne ñoo di suñuy nawle waaye ca gën gaa rafeti jikko ngir la nga xam ne moom la ñuy yaakaar ëllëg ak li nga xam ne moom la ñuy yaakaar suñu boroom bu ëllëgee yaakaar jooja du mën a tas sëriñ bi nag ne sammaytuhu tudde naa ko moom téere bi nahja xadail xaaji yoonu pajuk aajo fii xasdi zari cheikhina ci ngóob mbayum suñu sëriñ addal xaaji te kooke moo di addal xaaji sëriñ bi nee na téere bi ni ma ko tuddee mooy yoonu fajuk aajo kon képp koo xam ne soobu nga téere bi na nga xam ne yaa ngi ci yoonu fajuk aajo waaye sëriñ bi nee na maa ngi ko def ngir góob li nga xam ne moom la suñu sëriñ ba di alxaaji bayoon nee na loolu laa jubloo loolu laa jubloo góob ci téere bi maanaam bu fekkoon ne suñu sëriñ alxaaji dafa bayoon ab tool ba pare sëriñ bi nee na man li nga xam ne mooy téere bi li muy représenté mooy ngóob ma te yaakaar naa loolu lu ama am solo la kon képp koo xam ne soobu nga ko na nga xam ne soobu nga yoon woo xam ne yoon la woo mën a faje sa aajo sëriñ bi ne wallaha sama boroom rabbi wallaha yàlla rabbi yi sama boroom asalu moom lay ñaan ak taqabbula ak nongu bi fadlihi ci ngëneelam wa an yutimma ak ba mu mottali alamala mbir yépp muy jëf yi nga xam ne moom la ñuy jëf sëriñ bi nee na kon maa ngi ñaan sama borom bi subhanahu wa taala mu nungul ma li nga xam ne mooy téere bii waaye mu nungul ma li nga xam ne moom lay wa wax ci téere bi lépp suñu borom nungul ma ko te defal ma ko aw yiwu bari ci ngëneelam waaye mu eggaleel ma ko mottalil ma ko comme ni nga xam ne noonu laa ko noonu laa ko bëgg wa an yakuna ba mu nekk kasmihi niki turum wa maanaam mel ni turum wa fa yuslihu muy yéwénal axwaala man aajo yi ka nga xam ne wala mbiri ka nga xam ne yaqra'uhu dana ko jàng fa yuflihu ba mu texe sëriñ bi ne na téere bi yal na nuru turam bi ci fajuk aajo nga xam ne dana yéwénal turu dana yëwénal képp koo xam ne mbiri képp koo xam ne moo ko jàng waaye dana texeel képp koo xam ne moom moo ko jàng kon téere bi yàlla na wuyoo aw turam nga xam ne képp ko ku ko jàng rek am ci fajug aajo waaye képp ku ko jàng am ci ak texe waaye képp koo ci ku ko jàng am ci mbir yu faju waaye képp koo ci jàng ku ko jàng say mbir yëwénoo ci ba faw faw mu ne wa an yu'izani ba mu musal ma yal na ma musal moom téere bi minar riyaay ci ngistal wa wal ujbi ak aaw muy naw jëf bil muxtaari ca kañ tànn zilliwaay borom drapeau muy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na su doon suñu borom bi subhanahu wa taala yal na ma musal ci li nga xam ne mooy ngistal waaye yal na ma musal ci li nga xam ne mooy aaw muy naw jëf waaye yal na ma musal ci bàkkaari ñaaw yooyu yépp ci darajaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma nga xam ne moom la suñu borom tànn def ko muy ngën gi mbindeef waaye def ko muy yonent bu mujj boo xam ne ab yonent du ñëw ginnaaw waaye moom ma nga xam ne moo yor mooy yore liwaa'ul hamdi ëllëg yawmal xiyaam wa min siwaahuma ak ci yeneen yu dut ñaar yi muy ngistal mi nga xam ne moom la tuddal ak aaw jëf aaw muy naw jëf bi nga xam ne moom la la tuddal mina rasaili ci ñaawteef yi wa an yajuuda liya te mu yal na ma tabeel bil fadaili ci ay ngëneel nee na téere bi yal na ma may ak tab lépp lu di ngëneel rek yal na ma ko téere bi may waaye lépp lu di ñaawteef yal na ma ko téere bi yal na ma ko téere bi sorel kon yal na ma suñ borom musal ci lépp lu di ñaawteef ci barkeb téere bi moo xam ngistal la moo xam a naw jëf wala beneen jikko bu bon bu dul yooyu waaye yal na suñ borom tabeel ma ci ay may ak i ngëneel ci barkeb téere bi nga xam ne moom lay taalif wa an yu'izani ba deefu ma musal taala kawe na abadan bu faw min sharri iblisa ci ayu iblis allazi ma nga xam ne tamarrada féttéerloon yal na ma suñu borom musal ci barkeb téere bi yal na ma suñu borom musal ci barkeb téere bi ci ayu iblis ma nga xam ne dafa féeteerlu moom lànk ne du sujjootal suñu suñu maam aadama ba ko ko suñu borom sante mu mu lànk kon sëriñ bi nee na ci barkeb téere bi nga xam ne moom lay taalif yal na ma suñu borom musal ci ayu iblis moomee wa sarrima ak ayu képp koo xam ne xalaqa bind na bind suñ borom bind na ko fil ardi ci kaw suuf wama ak lépp loo xam ne xalaqa bind na ko fi samaay ci kaw asamaan suñu borom lépp loo xam ne bind na ko ci kaw suuf wala mu bind ko ci asamaan yal na ma ci musal ci barkeb téere bi lépp loo xam ne bind na ko ci kaw suuf wala ci asamaan te mu nekk aw ay yal na ma suñu borom musal ci loolu lépp ci barkeb téere bi wama baynahuma ak lépp loo xam ne nekk na diggante asamaan ak suuf kon lépp loo xam ne mi ngi ci jamono moo xam asamaan la nekk moo xam suuf moo xam seen diggante ñoom ñaar yal na ma suñu borom musal ci ay wi nekk ci diggante asamaan ak suuf waaye ay wi nekk ci kaw suuf waaye ay wi nekk ci kaw asamaan yépp yal na ma suñu borom musal ci barkeb téere bi wa an yajuuda te mu tabe li ya ñeel ma bitti baay ci topp xayril wara ngën gi mbindeef almushafaay kadi kanu ràmmuloo almutaay kadi kanu topp yal na suñ borom tabe ñeel ma ci ma topp yonent ba nga xam ne ëllëg moom la suñu borom di digal mu ràmm waaye mooy ki nga xam ne moom la ñu topp ëllëg mooy ki nga xam ne moom la ñëpp di yaakaar ëllëg ngir mu sauver leen ci kanam suñu borom kon yaakaar naa mën nañoo taxawal suñu bindub tey foofu di tuub bu baax te jéggulu di wax ne in uridu illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala